tey Casamance soo déggee touriste bi dox na Cap Skirring tubaab yëpp di ñëw à cause de Macky Sall parce que Macky Sall moo indi jàmm Casamance ñaata président ñoo fi jaar te jàmm amul Casamance loolu rek waa Casamance war nañ xool kóllëre boobu ak yëg-yëg boobu ak pont bu mu def nii bu mu taxaw war nañ ko voter soo ko après la soo ko war nañ ko mën a voter après soo ko mu ngi nii waa Casamance yëpp Ziguinchor mu ngi nii voter nañ ko taxul mu gagné après lay gagné Sonko mu ñëw léegi nii gagné amul kenn kuy ñëw huit mois nga gagné ku fi nekk sept ans di liggéey ñëpp gis ko nga ñëw huit mois nga bëgg a gagné loolu mënul nekk mënul nekk. ban message moo koy lancé mooy idée yu ma ko jox nii na toppatoo hôpitaux yi nit ñi nañu faju nit ñi nañu lekk mu wàññi lekk bi wàññi naan bi wàññi mu yokk salaire yi mu wàññi transport yi parce que Sénégal loolu moo ko yor. salaire yi baaxul nit ñi dañuy xëy ñuy liggéey suba ba ngoon hôtel yi restaurant yi ah si banque yi banque yi da ngay gis kuñ mais banque da ngay gis kuñ détourné ay ay 10 millions mais munoo di liggéey si xaalis mënoo di liggéey si xaalis di di di di laal ay 200 millions par jour sa salaire nekk mille mais nañu waxante dëgg loolu mënu nekk mais Sénégal man Macky loolu laa koy wax salaire surtout privé yi salaire yi na ko yokku mu wàññi transport yi mu fexe mu wàññi terrain yi kër yi ku nekk am lu mu am si réew yi ku am dix mille par mois ku am cent mille par mois mu am kër mu am dëkkuwaay parce que loolu rek mooy sonal nit ñi nit ñaa ngi fi bëgg nañ liggéey te amuñu liggéey mais liggéey cinquante mille par mois suñu la ko fay salaire xoolal visite yi lu ñu la ñuy fay banque visite ci dëkk bi garde corps yi ñu leen di fay ay cinquante mille ay quarante mille salaire. ay hôtel yi gagné ay milliards ñuy fay visite yi ay cinquante mille soixante mille raxas bool raxaskatu bool yi jigéen yi nekk bi di liggéey bu bugg a dee cent mille francs soo ko fayee nit transport dix mille ba pare dañ koy tere lekk si biir hôtel bi wala ñu tere ko lekk si biir restaurant bi lan am kooku ba pare ay stage yu jur geex société yi privé yi état bi stage stage un an stage deux ans man gis naa ay nit di stage trois ans quatre soo xëyee suba ñu dàq la mais mag yi na wax si loolu man jaaykatu jën laa su ma neexoon du ma si wax mais dama xam ne loolu mooy sonal nit ñi transport bi nit ñi dañu sonn kenn du lekkul naanul di liggéey dañu sonn dañu sonn